fi ñu jeexale dime mooy <laughs> euh, le cas Bassirou Diomaye Faye mhm. le cas Bassirou Diomaye Faye dafa pour la première fois maa ngi mhm. euh, euh, ces ces derniers temps ma ànd ak Alioune Tine maa ngi gis mu def benn post benn tweet xaw ma lan seen affaire yooyu mhm. di ko ñaawlu di gis na Bassirou Diomaye Faye dégg nga tey journaux yëpp ñu xëy ne dañuy euh, euh, boole kaawam dossier mag mm. dossier Sonko mm-hmm. euh, loolu dime noo ko jàngatee waaw Bassirou Diomaye Faye mën nañ ko defaral liberté provisoire wallaay wala contrôle judiciaire du leen contrôle judiciaire wàññiwu leen dara du wàññi dara waaw parce que ñoom indi nañ fa ay bracelet électronique mm-hmm. te loolu nee nañ woon pour vraiment wàññi mandat de dépôt yu bari la mm-hmm. xam nga mhm. désengorger les prisons mhm. donc man am na si ñoo xam te ni seen nekkin biir kaso wax dëgg yàlla amul amul raison xoolal euh, euh, xarim Karim Xurum Xax Karim Xurum Xax moom tamit mu bee passé gis naa donc su fekkente ne nii dañu am ak euh, yoon mhm. dañu am ak problème ak yoon bu ñu xoolee war nañ leen mën a bàyyi ñu dellu seen liggéey nga takka leen bracelet électronique comme ni nga ko waxee Bassirou Diomaye Faye

Euh, di ŋàññu justice. Mhm. parce que dañuy gis ñoo xam ne nii ñu ngi def lu ne weng. ñu ñu leen bay bayal. mu am ñeneen ñoo xam te peut-être que seen xaw affaire bi xaw na xaw na xaw na kii ñu ñu ñu bàyyi leen ci kaso bi comme le cas de Amadou Wuri Diallo. Mhm. ah Amadou Wuri Diallo. Mhm. def fi lu ne weng ci ci ci ci. wàllu médicament yi mu ñëw ñu gracier ko. grâce comme ça mu ah, daw. am ñoo xam ne nii benn délit bu ndaw lañ def ba léegi ñu ngi ci kaso bi. xam nga ah, donc euh, fu ñu am na ñoo xam te ni libéré nañ leen. man dama jàpp ne moom tamit war nañ ko mën a libéré bu xam contrôle judiciaire ak lu mu mënti doon. waaw ah, man daal acharnement daal wax dëgg yàlla. vraiment waaw man daal euh, voilà. xam naa naa ko a ak Thierno Diop. Euh, mais man kaaw Bassirou Diomaye moom vraiment. Euh, c'est c'est vraiment une une une grande douleur pour man parce que mhm. dama jàpp ne wax dëgg fa yàlla c'est un acharnement sur parce que wax dëgg yàlla Euh, li tax li mu yàggee nii prison nii rek. mais loolu man moo ñu ko moo ñu ko incroyable. c'est-à-dire waaw li mu yàggee nii prison ci benn poste. ñu ngi fi gën a garaaw bés bu yàlla sàkk. dëgg la mais mais xoolee ñuy daw ndaw moom dawut. dëgg la euh, kii mii mu sell mii wax na fi lu nee ba ñàkk a pexe ba nga xam ne nañ jël nañ ñàkk a pexe dugal ko te te te àggum ba tey ba tey ba ngi tëdd fële. dëgg euh, la ca ca hôtel 5 mais Bassirou wax dëgg yàlla personne comprend dëgg-dëgg cet cet acharnement la sur sur lui euh, poste bobu man lire nako ko yow lire ngoko moy comme li nga wax rek du man mo ci bok xaw ma ko waxe man rek bokuma ci bokuma ci d' mm-hmm. euh, euh euh man dama gis ne postom bobu wax deug fa yalla man dama ci gisul man grawité bu bu bu bu jar jël paaka jam ko nit gisuma ko ci fi bés bu yalla sak nit wax fi def fi lu lu ne wang démb rek gis nga sëñ boobu kii ki ki sant kii daa bañ wax dugg te tam dañ dafa blasphémé xaw ma lan euh, naay na daw na donc te comme ni nga wax sàng dimee waroon nañ kaa euh, fii majeure partie jox nañ la compte judiciaire temps yii ci màggal bi. Mhm. xoolal ci faveur màggal ñëpp ñu ngi woon. tout à fait tout à fait moom kaawam quand même c'est ah, bu ñu bëggee xëy suba nag tey bu ñu bëggee xëy suba tey jii ñu ni yow ba Bassirou liñ ko dugal. li ko dugalee mooy ñu ni xaw ma offense xaw ma ko waxee noonu à la justice si benn post benn post dana bind te ci poste ba defe naa phrase litigieuse bi mooy la clochardisation de la xam dafa dégg tubaab nag clochardisation de la justice loolu la wax Bassirou Diomaye Faye kenn mosu ko dégg mu saaga bokkul ci Pastef yu arrogant yi waaw nit ku éduqué kilifa la c'est un homme d'état parce que fa mu teg laa la wax mën naa la wax ne bu dee am na benn homme d'état Bassirou Diomaye Faye la euh, euh, reewul bewul fuuyul du wax lu ëpp du wax lu rëy saagawul xastewul musul taalu réew musul wax insurrection yaru lañ ko xamee ak yar donc wax na benn phrase boobu clochardisation de la justice bés bu yàlla sàkk waa passé fi ñu si bëri ëpp wax fa merelaan. <laughs> léegi kon jàpp war ñu woon génn. ba pare moom mii mais mais mais mais dime ñi ñuy kaa ba si jox chaque dama ci wax soo loo xam ne nii xëy na waruma ko wax mais yow ñi ñuy def compte judiciaire mais pourquoi jox ñu ko compte judiciaire. ñu ngi takkal bracelet ah, c'est ba ba te xëy na sax bracelet kilifa la man mi sax ku ma ko bëggoon jox bracelet ma tax ndax bracelet boo xamante nii foo dëgg daal foo demee kalang la ngi la ngi naan keroog kii euh, euh, c'est pas mon ami je ne l'apprécie pas trop seen ki ki yor seen communication ba El Malick keroog seen naag li ma koy yëpp sax El li ma koy jëppee waaye may li may jëppi El Malick yëpp sax yërëm naa ko ci kalang-lang la boobu ñu ko takka ma <laughs> ne ndax yërëm naa ko vraiment et puis bien aimé son courage mi ngi ñëw ci plateau yi ak kalang am boobu mm-hmm. donc euh, mais liberté provisoire baa ngi fi waaw surtout ba pare kii waaw judiciaire bi mais tey ji bu ñu bëggee ñëw nag nag ñu ni nag dañuy corser dossier bi mhm. yow yow mu sell mi nga xam ne lañ koy yan rek te nag lañ koy yan yëpp nag wax dëgg fa yàlla buñ buñ buñ doon toog nii taat bu baax nag da ngaa mu sell mii li ko waxal nii <laughs> mu sell mii ak lu muy sell sell mu sell li ñu ko waxal nii yëpp ishka <laughs> ah ishka ishka la ñuy wax dañ naan ishka ni imagineel yow yow yow bëgg sank sànq Bassirou Diomaye Faye weesuwul mhm. nga nga jël dossier am lëkkale ko ak basu mu sel mi nga xamne ne li nga ko yenn doyna doyna mo gratte ci États-Unis xam nga kooku mooy bi la waaw loolu mais loolu c'est xaw ma nag parce que euh, dañ ne moo war a nekk plan B mais moom neewul plan B yow kee euh, euh, Marius mais nga xam ne ma ngay war dëkk bi di di di campagne di espérer plan B bi <laughs> moo pay tas yee nekk nekk dafa ay ñoom jaalo joob ak kenn xamul te ñu bàyyi Bassirou Diomaye <laughs> mais ba kaa Bassirou Diomaye bi dafa maa métti dimee benn paire métti boo xam ne dëgg la donc daal vraiment comme ah. que dëkk bi ñu la teg

ñu mu dellu ci liggéeyam. parce que tamit. mais si kilifa la cadre de l'administration war nañ ko mën a xool bu fekkente ne dañ koy jox contrôle judiciaire mu jox contrôle judiciaire mu dem. loolu la provisoire yi ñu ko fay jox dañ kaa gën. mais daal vraiment kooku dafa waxoo. waaye mais naa ko gën a ma naa naa ci gën a yaatal. bu en tout cas maa ngi maa ngi ñaan daal wax dëgg yàlla euh, euh, euh, dëgg-dëgg man sama conviction. Mhm. mooy. yaa a des gens yoo xam ne xam nga prison kenn du ko yéene. dëgg la la waaye nag de prison. bu ñu fàtte tamit ne ne dafa am tamit aspect éducatif dafay yaraate aussi. am na ñoo xam ne dëkk yoon la ñuy nekk. Mhm. am na ñoo xam ne boo nekk si réew mi bëgg ko lëmbee dafa ay yëf def naa mooy def na comme nga fekk ni jam ko paaka. loolu kooku nit nit ko mënta dee. wala boog muy faju yow yow mi ko jam paaka nga nekk si jàmm. kon boo wàccee yoon yoon dal sa kaw lool dëgg la kon euh, waaye damaa jàpp ne am na ñu mérité yoon dal seen kaw mhm. waaye am na ñoo xam ne ni ñu mel ne Bassirou Diomaye Faye mii ak Karim Khouroukha mérité ko loolu c'est la vérité mhm. loolu nag te te wax dëgg yàlla ils ont fait preuve de courage euh, ay satu parce que man li ma gën a jaaxal ah. fii ku ku fi dem prison ñaar fan ñett nga nga yónnee ni da nga feebar mais man de wax dëgg yàlla xoolal man seeti naa ko gisuma benn yoon xoolal senessan sama sama per xamatuma sa fan laa gisuma benn yoon foo xam ne daal euh, vraiment waaye xoolal ñoom yuuxuñu waaw jooytoo ñu créé ñu fi maladie ñu ngi koy dund avec euh, dignité parce que tamit euh, xam nga combat politique ngay doo xam nga xam nga xam nga gis nga gis euh, nga Diomaye Faye peut-être que mës nañu bokk benn ñaareen plateau c'est vrai man na prison laa si gisee ndeysaan mësuma ko gis ne ndeysaan dëgg la combat politique la te ñoom xëy na xam nga comme li nga wax rek prison kenn ko yéene kenn. Mm. ñoom ñu ngi koy dund avec dignité. te dina leen jàngal lu bare bare. moo tax encore une fois ñuy interpeller rek la justice wax dëgg yàlla. bu nu xoolee ni daal war nañ ko mën a bàyyi dañ ko bàyyi mu continuer. waaw euh, doxi soxla mais tamit waxal nga tamit waxal nga tamit sànq kii di. Karim Karim Karim ma xam ko bu baax nitu nitu conviction la. nitu conviction nitu nitu conviction la mais tamit nit ah. ko xam ne ni yàlla xam na ni bu caméra tàkkulee. waaw waaw rajo rajo rajo tàkkul nit ku sax ku timide la nit ko xamni du sax xol nit euh, du xol ci sax xol ni ba pare dafa am yar. voilà waaw ba ba du bëri ay vertu nit ku bax nit ku bax la ku am éducation la. combat politique nak moy tollu fo xam te ne nga def parce que tamit gis nga Aïssatou léeg-léeg sax juum du ñak ci doomu adama ndax léeg nga nga nga nga am no sa sa bëgg-bëgg ak sa conviction mhm. yobula fo xamanteni xeyna nga nga gis ni lo xamni sax yow mhm.

ni la yaa waxone li xam nga donc loolu tamit lu lu lu jar la lu jar éviter la mais encore une fois ñuy interpréter rek euh, le ministère de la justice si mm-hmm. comme ni nga ko waxé euh, ñi nek euh, prison yépp di len ñaanal yalla mm-hmm. aussi tamit jamm mm-hmm. ñu xamni tamit épreuve la qui mm-hmm. a ci le combat mm-hmm. politique de mm-hmm. mais encore une fois le ministre de la justice est interpellé sur euh, le cas de euh, Basir Diomaye Faye Karim Khouroum Xaq ak ñeneen ñi nga ont ne ñi ngi fa te bu euh, parce que day day day day pas Ils taala mais buñ fa ay dossier de man de yëg man yëg ah. charge ba ñu war ko collé ak yu Ousmane Sonko mais loolu mais loolu nag moom loolu moom vraiment dafa naa ni lii moom bu fekkente ne lii c'est une information de libération de raconter n'importe mhm. ko waaye nag dëgg yàlla ñii foog ñu ñu leeral ñu par euh, euh, quelle magie dañu mhm. war a mën a lëkkale dossier Sonko mhm. ak ak ba Bassirou Diomaye Faye Sonko bi nga xam ne fi def ñëpp na weng ñëpp gis ko yow kii kii ña dugg kii dugg na xanaa ay frère kee er, kee er dara dugalu ko Bassirou Diomaye Faye dara dugalu ko loolu benn phrase clochardisation soo mënoon yóbbu taxi ba sama effacé ko clochardisation de la justice phrase benn phrase dañ ko dugalee kii mu sell mii def na fi loo xam ne man mii man je pense que je pèse trois cent kilos mu sell mi li mu def ci réew mi ëpp na 500 kilo la ëpp mais presque mu ngi ci ay tonne mais kon xam nga ni bo beugé jël basir Diomaye Faye nga dang nga koy ak Sonko moy yow yaangi sank doomu jaamur ji yaangi sank té te te lu kee lu mën a dékku Bassirou Diomaye da nga mëna a dékku mais ma adjoint rek la numéro 2 la numéro 1 bi nga xam bari ay soutien bari ay nang ñu tapé ko né ma nga né fiñ ñu Bassirou Diomaye Faye ñu ngi ko sànni Cap Manuel waye ké mu sel ma nga fé di di di di liisalu dégguma ñu delloo ci bi kotaan ma nga fé ci principal di liisalu kilim bi ëpp ko nangam ak nangam xaama noppi daal ba kii ba. te moom déggoo ko mu jooy benn yoon parce que xëy na loolu moo tax. parce que xëy na bu defoon bruit tamit xëy na. mais mais avocat ñu bind ni dafa feebar. waaw dafa diñ xam nga mooy mooy comme sama genre gi man maa ngi a wërënd ñëpp waaye fi ñu <laughs> ma ku lu ma naqar. waaye du ma onk du ma puuk du ma nangam. mais mu sell mi nga xam ne bala ma dem sax xatt nañoo ak jooy te def lu ne ba war a dugg waaye balaa dugg jooy naa xam naa grève de la faim def na ko yow euh, grimace bu ne mu sell mi def na ko fi pour génn eh, taxul gi dama fi ñu toll moom mu seeli moom li jënteetoo énergie bi dama problème mooy na génn te pourtant fa mu nekk nag xaw naa ne xaale waaye ñii nga xam moo tax. mu dugg pavillon pavillon teranga la nekk dégg naa ay ganaan ñoo ko fay fekk ah, waaye ñi nga xam ne moo tax mu ñii nga xam ñoom Bassirou Diomaye ñi nga xam ne mu xool Bassirou Diomaye kilifa doo guray na moom fi mu nekk sax bien c'est très bien ils sont très bien les gens de Cap Manuel waaye wax dëgg fa yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg Bassirou Diomaye Faye mii man man man j'ai été estomaqué ñu di espère ñu ñu ñu libéré ko ñu naan dañ koy bëgg a tëkkaleeg mu sell mi xam nga ne kooku kooku moom teguñu ko ci daaraay daara daara daara bu dee ay plan B la kenn war naan bëgg a nekk plan B bu mi Marius mais di taxawaalu fu ne un peu partout muy taxawaalu nañ jël Marius ma lee Marius chaque jour mu def fi dara waaye Marius da xam gi moom itam euh, nañ yëg di jotaay bi daal dafa am immunité ah dafa am immunité nag moo euh, fi ñu doon defatil lu ko yóbbu fee ah man na xam na ne fii immunité ñàkk comme moom daal bu ñu ñoom ñoom bu ñu namee ku ñu jàpp plan B Euh, euh, kee tamit xaru na moom biram tamit biram Souleye aussi moom xaru na moom. waaw moom tamit dafa defoon erreur. waaw waaw dafa defoon erreur moom xaru na donc comme Marius Malé euh, Marius ma ngay wër bëgg na nekk plan B moom na jël na moom moom moom ñii bu ñu namee ku ñu jël nañ jël Marius dugal ko. mo gën nañ jël Maris dugal ko mako wax xanaa ne damaa soxor waye ma tay dama nañ jël Maris dugal ko te génnal Bassirou Diomaye waaye jox suñ ñaay kay yo jox rendez-vous kay yo jox rendez-vous eh, non non yow yow mom non yow yow yow ñol tàbbe lañu def semaine prochaine mais samedi ñëwoo ñëwoo nga tëb nga non non non ñëwoo sama def mi ñëwoo ñëwoo ñëwoo yow yow dañuy def rek yow yow yow yow par par kii yow yow. surprise progressivement progressivement façon progressivement. Eh, mais progressivement ñu nang nang par tuuti tuuti nañ daw émission ba ba nañ 14 euh, 23 foog nga gaaw a àgg si foog nga lay xaar <laughs> euh, mbokk yi bi nga ñu gisaatee.